loo xalaat si Gris 2 Gris 2 na def la gis nañ ko muy wax na mu ne yow la bëgg daal comme mag rek. waaw bu ñu laam boolee dinañ bëri waaye man néew ma fa daal bu xam dama damay bëri. waaw bu ñu laam boolee mën nañu bëri sans problème. la mu affaire bi duñ waaw waaye man néew fa daal bu xam dama damay waaw bu ñu làmb boole mën nañu bari sans problème. gis nañu sa combat yokk sita xeex bi jaar na yoon de. <laughs> entre. waaw la. Ah. waaw père la xëy na li mu toog bariwul ah ci Diabon. gi noonu moom mooy <laughs> moom ma ngàddu la Siteu ngàddu ko xama gis naa ci pro nag. Ah. xëy na moment boobu lañ gën a lañ doogay tàmbali liggéey bi. Ah. kon yaakaar naa buñ ko gënee continuer bu ci kanamee euh, li ci kanam daa raw li bët la ñuy wax. maa ngi nuyu ñëpp di nuyu monde entier di nuyu télé bi nga xamante ni mooy lutte tv point com